اللهم وهب يا رزاق يا من كلفت وهب لي وارزقني من آناء ليغي أشن عاجلا بالبشير محمد الدين حتى أقوم بدينه كما سيدي وعين توا وحمني وقني أذى وراه سماع وأدي وشاركني أكون أجيب سيدي حسن سيدي محمد طيب براس وإذا مرضت وهو يشفيني تبل أبدان مخدم على تبل أرواح kon suñ bi wax aw ko ma xaal lii leen di siyaare bu baax a baax di nuyu ñëpp wax sax wañ ko ma tawatu di di di siyaare mbokk yu di ñëpp nag rawatina mbokk tali bi di leen siyaare ci xew-xew yu yu te yu te teefoo yi xam ne kiimaan la waaw waaw waaw nga xam ne xalifa bi daal mu tibaat xalifa maam Cheikh Ibrahima ak suñu soo seli moom ñoom ñëpp rek ak ak ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ko seer ñëpp rek di di si si xoolu xoolu Muntaxa kon di di di ñaan ñooñu fi bàyyi ko ñu dëdd ñoom jàmm fekk fa jàmm bàyyi fi jàmm yàlla wane leen nag seen sang yu teddee waa rasim si yàlla salaam wa abdul xadim naa li ko al xadim ok tey xam naa moo dinaa bëgg na waxtaan ci ci ci wér-gu-yaram du wax sax médecine xam naa baat bi ndax kon kon kon su boobaa jàngkat yi nga xam ne dañ koo jàng ci làkk càmmoñ bi bindum càmmoñ bi kon kon daan laaj kon waaw Moussa moom alkooki yu moom daa jàng médecine déedéet am ana daal ay gendiku ay ay ay gendiku ku laay wax ci wér-gu-yaram yoo xam ne jombut dana mën a jëriñ gaa yi nga xam ne nag ñoo ñoo ne ci xaw moomu mooy médecin yi maa ngi jégalu kon ñoom luñ ci gis ci njuumte rek mën nañ ko daal mën nañ ko daal di jooyante maanaam yi may wax ci ci wér-gu-yaram dafa xaw a lënkaloog fiq moo tax loo loo tax rek ma ci wax waaw misaal li ñuy wax émorite émorite nag définition wa du ma ci dugg xaw ma ko ma dégg ni ni ñu am lu ñuy tuddee émorite la ngay tuddee nag jënd ko ku yow ci ci ci am ma ko laal ndax ndax dafa lëngalu fiq moo tax maanaa tey nit ki bu demee ca faje aajo ma noppi ca wana wa di laabo di raxasu waaw di kaayam boobu mu di ko raxas léeg-léeg bu dee ku senk la day raxas ba sonn day raxas ba sonn bu yàlla tere mu di ko bomb di ko di ko di ko jonju maanaam nag su ko raxasee noonu di di ko bomb ni nga xamante ne kuy sangoo njàmpe di di di di joos doo sax joon di joos jigéen ñi xam ne dañuy joos seen yaram ñoom léegi sax ñu ñu la xale bi di di di ko di ko peggee njàmpe lu metti muy joxu ñu ne day tax mu xees wala si billa fekk na ne der boobu ne ci kaw di di ko aar ci jant bi jant jant bi rayon yooyu ceeñeer jant bi nga xam ne day mën na joxe cancer da da da ciy aar yaram wi kon cancer wu yaram cancer wu der boobu kon der boobu nga xam ne da koy kii der boobu der boobu boo ko joosee wala nga joñ ji ko njàmpi ba mu set kaare nga nga la la fi woon te kon te kon te kon kaare nga der bi dayaa di deñ microbe yab ko rawatina virus yi nag waaw waaw am sax am seen boobu naan waaw ab liir ab liir ay bis nee na leen lañ ko war a sangoon ndax dana der boobu waaw loolu loolu moom wàllu mission yi la waaye daal nga waaye nga xam ne bërëb boobu waa ji waa ji am na der bi na ci yaram fépp ba ca foofa am na fa der bu woyof boo xamante ne moo ko moo koy aar boo jojoon joon ak njàmpe di sangu di joñu ko njàmpe moom it lor ji di am ca ba ngay raxasu fee di ko ëpp sax mën naa am ane woon foofu kon kenn di ko joñu ak njàmpe ndax li li ci jig loxo bi nga xam ne boo ko joñu njàmpe bi der boobu ba der boobu dañ microbe sax dana ko yab waaye fee moom microbe dafay jaar ndax ndax dem àll ba ay microbe lay àndal te kon foofee kon day daal di effecté wu day daal di bu bu jar ba ba aar foofa seetee day daal di microbe day di mën a judd judd ca buntu ba day daal di mën a judd ndax boo boo seetloo teewoo boobu raakol boobu nga xam ne ci la àll bi di jaar ci raakol boobu nekk su moom liggéey ci ci biir ba ci ba ci buntu bi microbe yóbbu ko waaw aar na ko ba ba nga xam ne microbe du mën a sosu foofu waaw nga xam ne nga xam ne nga xam ne moom dafa aaru waaye nag bu bu xasee ak ci ci bunt bi bu ca ab gaañu gaañu amee wala fof wala wala loo xam ne der der boobu nga xam ne ci bu ci ci bunt bi nga xam ne mooy bitu yaram wi moom moom lu ci fof rek der boobu bu fi nekk saabu sa sa saabu bu liñee rek microbe day daal di di di mën a jam ci. ca yaram wa kon ku ku ku sangoo njàmpe baag si foofa bul ko bul ko joos bon joos laay wax ndax ki fi gën a leer bul ko bomb ak njàmpe waaw boo dee boo dee laaw it bàyyil xel ne tiwo bi bu dee génn waaye di di tiwo di tiwo bi tiwo bi day ñu ko suñu borom liggéeyee day lu ñuy wax law law maanaam day nekk coow boo xam ne day lemu ay lem-lem yu bari bu dee génn nag bu dee bëgg génn la ci biir coow ci coow boobu ci ci biir lay génn di génn di génn di génn bu génnee ba ba ba loolu mën génn jeex booyanteeg mu daal di delluwaat bu delloo ba jeexaat tàkk booy raxas bitti ba rek ngay raxas ndax ndax ndax ñu bari dañ dul bàyyi xel ne laab ab at rek la ndax ginnaaw okkiir okkiir sax soo ko soo ko laaboon boo noppee pomp comme tey ci kàttan kon kon su su boobaa ñu ne kat laab na mën ngaa julli kon kon kon boo doon jàpp. bëgg a jàpp te amul ndox ñu ne la mën ngaa mën ngaa laal suuf si waxuñu ne nga xalamu ko degal sa loxo ci suuf rek daal di koy fëgg daal di raay sa sa sa xar kanam am na ñoo xam ñoo xam ne ku dem fu ne la ñuy jaarale seen loxo ci kanam gi boo yeexee sax suuf si dugg ci seen bët yi kon su waa da da ngay da ngay gëmm boo dee tiim da ngaa war a gëmm boo boo accès ci ci ci ci raay kanam wi da da da ngaa war a gëmm ndax bala bala caa suuf sa dugg jëloon na nga ci ngay raay fii ugg bët wi ne déedéet waaw waaw naka noonu naka noonu ñooñu di jàpp boo dee ma boo dee raay bopp bi. kawar kawar gi saq boo ko dee raay bul ko ubbi ba mu àgg bul ko ubbi bu baax tegal ci kaw rek raay rek la ñu wax waaw waxuñu nga di ko ubbi ndax mën naa am ndox boo boo ubbi kawar gi boo jël sa loxo teg teg ci kanam ci jëb yi di jëm ginnaaw bu dee koo xam ne daa baaxoo woto noonu kon kon kon kawar ga day day day day ubbi bën bën yi li ci li ci bopp bi bu ci ndox toqee rawatina aw tàngoor yàlla tere mën naa andi ak ak ak ak wéradi bu ci bu bu ci bu ci ci ngelaw duggee courant loo ñu wax courant ngelaw dugg ci diggante dara beeg ak yaram la waaw waaw nga xam ne ne ne ne am na leneen loo xam ne la ñu tuddee hémorroïde waxoon naa ne waxoon naa ne du ma dugg ci définition bi xamuma ko loolu am ñu ko koy tuddee bokk bokk na ci li koy joxe loolu lépp ay ay ay génne ko rek la maanaam mooy li ñu tuddee si sièges yooyu ñu ñu capp mooy sièges turki yi yooyu si sièges yi moom it moom it dana ko waral dana dana waral waral waaw ndax boo toogee mbàq gi diis day day puus mu jëm suuf loola loola loola mën naa indi émirate nga xam ne kon siisu anglais yi li ñuy wax siisu anglais yi moo moo gën moo gën a moo moo gën a na xam-xam yi gën gën laa noppal nga xam nga xam ne nga xam ne mbàq gi lii buum yooyu ko téye du sonn waaw waaw waaw du sonn am na loo xam ne mën naa joxe loolu ñuy tuddee émérite mooy mooy maanaam léegi sax xam naa ne bëri tut mooy bu ñu jikkoon na gis ay wanag yoo xamante ne fi ñuy tiim dafa dafa faj aajo da ngay séen mbir ya nga xamante ne am pax lay doon rek noonu loolu moom mel na ne léegi kii tàngoor woowu ci jóge di dugaat ci ci nit ki mara day tari xam-xam xam nga ngelaw moom xam-xam ne nee na fu mu jaar nit fu dul ay ay bakkanam mara mara day tari waaw nga xam ne ne kon bu dee it siège yi nga xam ne mooy siège yi tikki copp yi yàgg fa yàgg fa noonu moom moom it ndax boo boo xoolee arrière arrière xaw ma lan la doon ngelaw lii di lii lii dikkaat maanaam ku yàgg ca ca ca capp ba day day yëg ne ngelaw la la ngi di dikkaat ci wana wi te loolu bu duggee ci moom mën na koo indi lor ndax ndax ngelaw la ay microbe la la àndal xam naa loolu ko ci ci ci kon. feq bi ñu xam ne kon kat feq bi kat kon loole jotaay yu bari yooyee du xadis lañ ci wax wala axwaan waaye yooyu moom wérgi yaram la médecine la tibbul abdaan la kon moom léegi wares na na caa mën a xalaat wares na na caa mën a def tajriba seet expérimenté ba xam ndax lii mën naa lor wala wala du du du lor waaw loolu xam naa ne loolu ñu tuddee émérite définition bi néew naa du du du du dugg xawma ko waaye waaye phénomène boobu daal gis naa ne yii yaakaar naa ku ko seetlu mën naa am ba ko xel mën naa am du du du la dara du lor ah am na lu lu lu ma ci ci fàttewaat mooy ceeb bu ñurut ceeb boo xam ne ñurut. wala cere joo xam ne dafa amul laalo safut laalo ci ceeb bu ñurut wala bu bu mandiwul ndox wala wala bu weseng bu weseng nga xam ne weseng mooy soo tibbee ceeb bi te dank bàyyi sa loxo tala sa loxo mu ne tasar ci ci loxo bi loola ceeb bu weseng la mooy ndox mu dafa des ci ceeb bu bu ñurut moom moom moo moo moo gën a yées moom ba ba nga xam ne baaxul dëgg dëgg dëgg nag moom mooy ceeb bu ñurut di ko yëy ci ci ceeb bu ñurut mel na ne ne moom it ndax la li tax ma seetlu ne baaxut mooy ne baq gi nga xam ne moo ko war a soq dëbb ko wal ko boo xooloon baqum xar boo ko xoolee. càmbar yooyu ca ca ca ne mooy mooy mooy bañ yër ku dee xam ne dë dë dëgërut bu wutoon rek ñam buy bax gi gi muy bax kon kon moom léegi du ci mën lu bari waaw waaw léegi nag su su bëggee dëbb dëbb ceeb bu bu bu bu ñurut misaal wala bu bu soosan mën na ko gaañ boobaa nag ulcère la ñu wax ne kon lañu ulcère mooy dagg-daggu baq ga am am am ay dagg-dagg daal di am ay ay góom waaw loolu kon kon kon moom it mat na mat naa ba xel waaw waaw waaw mën naa ba ba xel ne ne ne yooyu am na leneen loo xam ne mag ngeen ko daa wax maanaam léegi maanaam am am njaayeen bu buy lekk xanaa yàkkamti du wal du wal dugub ji ci kimiñ gi ba mokk mu soog koo ci wanaasu mag mag ñi dañ naan lépp lu lu lu mokkut bu jàllee du amal yaram wi njëriñ waaw waaw kon xam naa kon ci ci ci ci ci génde ko ci tënk tënk ay ay génde ko yoo xam ne jombul mën naa am mu amal njëriñ nit ñi koo xam ne nag sa taxasus la li may wax loo ca gis gis ñoom te nga baaxee ko ñëpp rek salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu comment uridu illa al islah mastata wa ma tawfiqi illa billah